meeting bi ndar kep seni campagne ci bi dëkk bi ci Touba wa zone bu daru Minam don nañu amal seen meeting bu muju ngir safonté ak seni militant ngir gëna a waajal wate gi ñu jëm ci dibeer gi ba taxna ki nga xamanteni mo yoron yoroon mbollem ndaw ñi ak kurel ya fa nekkon daal dina yëkëti ay kàddu ngir gëna ñaax mbolo mi seen taxaway ngir ñu mëna am li ñu bëgg. gan ci parti bi ndax Macky Sall mi avant muy fall élection 2012 bi koy indi fii boobu parti bi yorul dara ñu leen fexe ba suñu leader falu kon suñ leader boobu bi su faloo ñun ndaw ñooñu war nañ cee mën a gis suñ bopp bu baax a baax mais nag financement baax na d'accord mais nag am na financement yoo xam ne si ni yaakaar naa moo ëpp doole yi fi jotoon a jaar te yooyu tamit ñi ngi koy xaar am na si loo xam ne si nii nag jot nañ koo waxtaanee eh, waxtaan la nag waxtaanu biir xëy na yoo xam si ni ñëwagul politique dafa xaw a garaaw soo diggee dara te nit ñi gisuñu ko dañuy dal seen kaw ne nit bi woon na fi bi def ko loolu nag duñ ci mais nag liñ bëgg ñu def ko mooy daara mi nam àndandoo nekk benn bloc su ko defee dana tax luñ song mën koo daan ndax tey bëri na ay ñoo xam ne si ne ay responsable lañ ci biir daara mi te jot nañ cee waxtaan yaatal ci bu baax a baax ñuy bëgg nag bu lii jàllee ngelawaay ñuy ban di réeroo ñun waa daara mi xam ne daara mi nam benn bopp la kenn mënu koo xar ñaar Matar Diop bok ci au conseil yi dal dinay rafetlu liggéey bi nga xamanteni basirou Bassirou Diagne moom mi mu fekk si woon mi ngi koy amal ci biir dëkk bi ci Touba mom mi le sax jël na dogal dal di jappalé basirou Diagne ci yenn liggéey yi nga xamanteni mi ngi koy def ci biir dëkk bi. basirou Diagne nak yaakaar ne ñi nekk fi sax xamuñ mom moy kan 2006 ba léegi man ak basirou Diagne ñoy and kon bok luma sédé ci mom yalla rek mo tax may wax waxuma waxi bakkan. waxeewu ma bakkan waxeewu ma lu ko bëgg lu ko neex waaye lim def fii bu fekkoon day toog di ko bàkkoo riir dana bëri waaye xal la boo xam ne ku am jom la ku am ful la bañ ku ko yëpp te lu mu am fii moo ko gënal lépp loo xam ne ñoo ngi koy séddale ci dëkk bi dana am fullaam ak faydam fexe ba mu ñëw fii ci koñam moo ngi nii financement yi biñ koy def Il y a xam financement à hauteur de 5 millions je suis témoin biñu def ñuy jël ay xalé Dakar dem dik dafa tuwem ba ay dugg ci légui ay fonctionnaire lañ muy def fi université xalé yu bari jël leen ñu ko bas financement mo ci des la jappalé nga financer jigéen ñi dama ci duggal sama loxo man mako wax bu campagne jallé dana leen may 1 million yeen jigéen million fii jigéen ñi Diagne man mako wax un million mi woote woon ndaje gi am na message bu mu yëkkati jëmle ko ci ñu bokkal politique bi ci biir Touba. bis la te képp kuy wan kuy wut ci say mbokk ngay dem kuy wutit fi gën a yaakaar fa ngay dem loolu moo tax ma ñëw fii tey di dagaan baatu askan wi fi nekk pour dem jébbal ko président Macky au soir du 24 février. kenn ku nekk nag war ci mën a am taxawaay taxawaay bu mat ndax coow li bari na waaye nit ñi tamit ràññee nañ xam nañ bu baax a baax ki di jëfal ak ki leen di nax ndax président Macky Sall biñ ko joxe mandat wu sept ans tëddul rek di nelaw tëddul di nelaw dafa dem liggéey bi muy liggéey mu dem ba mandat bi jeex mu war a laajiwaat bi muy liggéey ba mandaam jeex moom rusut a dellu ci askan wi pour laajaat leen ndax dama jàpp ne sept ans wu président Macky Sall yi wecc na juróom fukki at yi ñi nga xamante ne si ñoom ñoo ko fi jiitu te bu ma ko waxee fu wér laa ko teg euh, ku ne xam na ne bi muy ñëw en 2012 li ñuy wax denrée de première nécessité dafa yéegoon ba ci kaw muy ceeb diwlin meew ak yi ñuy dunde moom bi mu ñëwee da ko wàññi ba sénégalais bu nekk man cee jot leneen li ci des ku ne xam na ne régime bi fi jógee seen opposant bi gënoon a mag mooy politique d'énergie muy électricité di wàllum courant xuyu xuyu kamaj bokk na ci li fi jëlee président Abdoulaye Wade te président Macky sàll bi mu ñëwee daf ne loolu sénégalais yi yelloowuñ lii di courant ñu di ko ñàkkati ci loolu la xeex ba Sénégal am ci autonomie tey jii courant dañ koo am ba mu doy sëkk ba dañ koy jaay en tout cas Macky Sall mooy candidat bi gën mooy mooy candidat bi gën te gëm nañ ne aussi au soir du 24 février moom la ñuy joxaat réew mi kon ñun nañ fexe ba ñu nit Touba ñu bokk ci ndam loolu loolu rek moom moo ci am solo fa lañ leen di xaar bureau yaa ngi fii ci école sëñ Cheikh soriwul avant ngay àgg marché Mame Binta incha allah dinañ leen indi ay oto nit ñi mën cee dugg dem voté ji ci niñ ko bëggee ñëw tëgaat seen kër xaar déglu résultat ni ko président waxee rek ku ci mën a nelaw demal nelaw bu 18 heures jotee nga taal sa rajo taal sab télé bàcc yi dana metti metti goo xamante ne si président bi yoon dañ cee jël ay matukaay en tout cas yéen bëgg naa ngeen bokk ci ku ànd ak mbër moo xam ne nag day daan boo mënee téye cubbikaay bay boo nga téye ko boo mënee yuuxu nga yuuxu waaye nag Sall moom day daan ndax moom mooy mbër mi fi nekk liggéeyal Serigne Touba liggéeyal Sénégal liggéey ba àdduna sépp wóolu ko joxaat ko xaalis boo xamante wër na ma ne kuy dem élection ci réew mu mel ne Sénégal ñu wóolu la joxaat la yooyu milliards jàpp naa ne loolu rek junj la kon nañ xam ne président Macky moo fi nekk. ci cappaandaw ko moom mi lee def na benn càmbar jëmle ko ni mu gisee campagne bi fii ci biir Touba.